Touba ville verte di Touba dëkk bu naat nekk mbir mu soxal jamono yi kuréel gi di Touba ca kanam di kuréel gu taxaw ngir jëmale Touba ca kanam gannaaw bañ amee ndigalal Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ci projet yu am solo yi ñuy def waxtaan ci ak mbooleem kilifa yi saytu dëkk bi xam muy maire wala sous préfecture ak mbooleem ñi nga xam ne ni seen xam-xam dafa jëm ci garab tax na Touba ca kanam sumbu projet bu am solo bii ngir natal dëkk bu tedd bi di Touba abdu Fatah Gueye di président Touba ca kanam dikk na ci nu mu gën a yaatoo. reboisement bi mooy jëmbatum garab yi dañ ko tuddee naatal Touba fekk nañ fi nag booba ay kuréel yu bari yoo xam ne yii ci état bi la aju yoo xam ne yii ay daayira lañ wala ay association yoo xam ne lu jëm ci wàllu garab ñor na leen bañ def ci ay liggéey yu am solo Touba ville verte xam ngeen ne projet étatique la boo xam ne jotoon naa dugg ci dëkk bi. waaye am na beneen Touba ville verte boo xam ne association la ak yeneen kuréel yi fi nekk bi ñu xalaatee projet bi nag dañoo fexe ba dem ci ñi nga xam ne ñëpp war nañ cee wax ak ñoom ñëpp ñi yëngu ci wàllu garab ci dëkk bi ak autorités yi nga xam ne ñoo leen fi deewal dem nañ commune ba am ak ñoom réunion waxtaan ak ñoom ci njiital Serigne Cheikh Abdou Bari mi nga xam ne mooy jiite commission environnement bu commune bi dem nañ préfecture bu Mbacké ci préfet adressé ko lettre bind nañ lettre Sonatel ak Senelec bind nañ waa Ageroute aussi ndax euh, kuy des ci wàllu yoon nga ciy am loo ci liggéey lu mel ne di Touba ca kanam doon liggéey faaw da wax ak ñoom bi ñu bind bi ñu ak ñoom ñëpp nag bind leen dajale nag borom xam-xam yi nga xam ne ci yoon wi lañ bokk ndax Touba ca kanam bi ñu koy woote ci xalaatu Serigne Abibou ku am alal lañ woo ku am xam-xam ak ku am doole borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu environnement rawatina reboisement dajale nañ leen waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp ñu joxe seen i xalaat ko ci daayira xidmatul xadim bi nekk eaux et euh, direction des eaux et kon waxtaan nañu ñi nga xam ne ñëpp war nañu waxtaan ak ñoom ba am ci gis-gis bu leer daal di dogu fas yéene dem nag tàmbali yi. gannaaw bi Touba ci kanam xamee njëriñ yi garab mën a indi doomu aadama moo xam ci ak dundam wala li ko wër tax na nag ñu yëkkati lu toll ci juróom fukki million dugal ko ci naatal Touba tey nag. li ko dalee ci garage bu njëkk bi ba ci sorti Touba ñu mën koo xayma ci ñetti kilomètre jëmbat nañ fit lu tolloog junnee garab lii nag ñu ngi ci ànd ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne nii benn yéene lañ am muy ànd ak tubaa ca kanam naatal tubaa ñi ca gën a fës nag bokk na ci baay Fall yi. parce que li ñu fi def tey ku ko bëggoon a fay caaxaan fayu ko te loolu du loo xam ne mën nañ ko dugal ci biir budget di ko calculer di ko calculer waale di wax ne montant bi toll na ci nangam moo tax montant bi nga xam ne Touba Ca Kanam décaissé na ko waajal na ko pour def ko ci reboisement ci atum ren bi toll na ci 50 millions mais distance bi li ñu fi jot a def boo koy xool mën nga ko estimer ci 30 millions parce que pareegul ba léegi liggéey yi des na jàpp nañ ne bu noppee dinañ fi def en espèce luy tolloog 30 millions au maximum waaye bu ñu xoolee li nga xam ne nit ñi jaayante nañ ko ci dugal ci seen loxo jàpp ci liggéeyu Touba ca kanam ci loxo yoo xam ne dañ koo jaayante ngir jëmbi Serigne Touba loolu boo ko doon xayma mu romb loolu fop kon dañuy joxe rek coup bu mel noonu bi ñu ñëwee fii ci diggante deux voies yi nga xam ne ci lañu ñu commencé tam toll ci ñetti kilomètres ñetti kilomètres yi dañ ko xayma ne nañ fi def junni garab yan xeeti garab lañ fi def laataa ñu koy wax waxtaan wi bari woon na ci waaye ñu mujj dëppoo ci ne nañ ci moytoo def garab gu rëy parce que foofu dafay soxla lumière ndax dafa am lampe nañ ci mooy too def garab gu rëy ndax ñaari tali yi dañoo xaw a jege te reen yi mën naa indi jafe-jafe ci tali waaye diggante bi aussi am na ay fil yu fi nekk yoo xam ne ah, ñoom ñoo war a lëkkale lamp yi nga xam ne ñooy leer faw ci biir loolu nañ ci xalaate kon ak borom xam-xam yi ne kon nañ ci kooku ceene garabu koko la beneen façon la boo xam ne am na wuute ak yeneen ndax garab yi ni ko xamee bu ci nekk dafay am wuute ak morom ci biir loolu ci biir xalaat yi bi ñu fi jëm bi ñu commencé nag ne nañ ko def garab yi koko ceene dañ ne nañ ko def ay distance de 3 mètres garab bu nek ak morom ja ñetti mètre lay doon ñetti kilomètre yi ñu def ci junni garab waaye xam ngeen ne garab li muy àndal dafa bari ci rek ay xalaat dafa daal di tàmbalee jib ci nekkoon nañu waajal nag unité de transformation bis bu yàlla dogalee garab yi ko koy commencé meññ nga xam ne loolu dafay daal di commencé dugg ci wàllu industrie industrie boo xam ne dafay jóge ci reboisement bi ndax dañ ko xamee reboisement bi ab commencement rek la waaye biir dëkk bépp lu bëgg mu gën a yaatu ba fu ne am ko lu wër corniche yi ñi ngi xalaat ay garab yi tàndarma ñi ngi xalaat ay garab yi mango mbedd yu mag yi nga xam ne ñoo bàyyi ci jumaa ji jënd dëkk bi yëpp ndax ni nga ko xamee Touba moom li ci tawféex ji mooy mbedd yëpp dañoo jëm ci jumaa ji wala mbedd yëpp dañoo bàyyi ko jumaa ji dem li ko sabab nag yomb naa wax moom may borom dëkk bi dañoo njëkk a jiital jumaa ji doog a tabax dëkk bi loolu moo tax lépp bàyyi ko ci jumaa ji dem mbedd yooyu yëpp nag fas yéene nañ cee defee garab penc yi fas yéene nañ cee fi garab garab yooyu nag war naa doon loo xam ne lu yam rek ci naatal dëkk bi mu nekk mu nekk ab taar nii rek waaye dafa bari njariñ njariñ yi buñ ko doon buñ ko doon lim du jeex naatal nag bokk ci benn ci sumb yu am solo yi nga xam ne ni Touba ca kanam sumb nañ ko bi ñu juddoo ak léegi gannaaw biñ taxawale fii ci tuba ay bërëbu fajukaay indi fi ay lamp indi fi ay oto ak yeneeni projet rawatina nag dimbali néew di doole yi ci jamonoy xew-xew yu mag yi ci mel ni màggal wala tabaski Tuba ca kanam nag jógaat na feddiwaat laxasaayam fas yéene jàpp ci dëkk bu tedd bi di tuba ba lépp lu koy jëmale kanam ñu nekk ca loolu tax na nag projet bi ñu door ko te fas yéene ko yaatal mboolem Touba ak li ko wër